mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare fi leen baaxoo di leen nuyoo ci seen émission Bamba Fépp fii ci Kifne TV di ñaan saa borom yàlla defal ñu tawféex defal ñu saxaatu daare ni tey ji nag ñu dem dëkk bu tedd dëkk bu sell muy Tiwaawan fekk fa kenn ci njabootu Seydi Hadji Malick Sy di sering sëriñ Bay Si Mansour sa borom yàlla ya, yàggal ko suñu kanam kon nañu ñaanalee Cheikh Mawdo Muntaxa ya, suñu borom yàggal ko suñu kanam ñu gën ko miin ci Baye Mañang Seck di werekaan ñu gën ko miin ci tàggat yonent bi sallallahu alayhi wa ñu gën ko ci bi ndax bi mooy yaatoo nu ne te kenn ku ci nekk di ko dundee nu ne mu ànd ak kilifa gu nekk nag ci kër Cheikhna Tidiane yi tey ji moom lañ dalal ñu fa yéene waxtaanee lii waral dëgg-dëgg Bamba fépp ak si Hadji Malick ak borom Touba dañ koy bàyyi mu nuyoo salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Mañam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلاة وسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا التجاني ومن لنا إليه وسل كاسف عظيم mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaare leen fa tabaarakallahu di leen baalu xaq waaye di leen ko baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare yi xaaj ma sàmba li nga xam ne fa tabaarakallahu ginnaaw bi ñu la fayee nuyoo ba pare di la wax wa aleyka salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa maxfiratuhu ñu ngi lay jox wàcce sa wàccuwaay fa tabarakallahu di la jiital ci nuyoo yi ndax yow yaay suñu buntu tabarakallahu ci kër gi salaamaaleykum aleykum salaam jërëjëf euh, sëriñ Mañang ci nuyoo bu tedd gi di jotaayu Bamba fépp di jotaay boo xamante ni li ko tax a jóg mu yaatal liggéeyu mag ñi ndax seen taal du mos a fay di santat yàlla bu baax eh, jërëjëf ndeysaan eh, Baye Mañang mu mel nii tey jii émission bi nga xamante ne tuddee nañ ko Bamba Feppu te fépp ci lu baax tey si tey ñu fekk kenn ci kër si li Hadji Malick tey jii Baye Mañang boo doon indil diggante Bamba Feppu ci diggante Seydi Hadji Malick ak borom Tuubaa seeni bokk lool ci indil. barakallahu xam nga boo defee émission. tuddee ko Bamba fépp loolu ilaa ngay waxtaane ku mel ni Cheikhil Xadim woo ci njabootu maam Cheikhul Xaaj Malick lu jàddu la ndax maam Cheikhul Xaaj Malick Sëriñ Tuubaa bi nga xamante ni mooy Cheikh Ahmad Bamba amul mbokk mu ko ëpp fii ci senegal ci deret ak ci diine amul yàlla xam ne ko ñoo bokk la ñu bokk bokk seen maam fa tabarakallahu bokk seen mission bi nga xam ni moom la ñu amee ca yàlla jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon fa tabarakallahu uh, Seydi El Hadji Malick bi may ñëw léegi waxtu bi moo xawoon xat waaye dama bëggoon notification waaye li wér mooy ñoom ñoo bokk seen maam maaram mm-hmm. loolu doy na sëkk mm-hmm. waaw yàlla xam na ko beneen bi ci topp itam même bu ñu bokkuloon maam maaram ñoo bokk yàlla bu ñu bu ñu bokkuloon maam maaram ñoo bokk yàlla ñoo bokk yonent bi sallallahu alayhi wa ta mission bi ñu amé won ñaar rek la moy xalallahu xaala rasul wa tabarakallah képp kenn nak ku nekk seen jabot nga jëfé leneen dur alquran ak sunna yow ya ko yow la engagé waye maam Cheikh Hadim fa mu tegoon tànkam mooy chariatu sharia alquran ak sunna fa tabarakallah mbokkam ba maam Cheikh Alhaaji malik moom mission boobu la yoroon kon li ñu bokkoon ci wàllu mission noonu la ñu bokkee ci wàllu deret nekkoon ay wóllëre mm-hmm. yoo xamante ni fasante nañu kóllëre ca li ñu xam loo xamante ni tey xëy na waxtaan bi buñ dee ba ci kanam dinañ ci indi gën a indi leeral ndax dem nañu ba njaar ne mag toog ak ñun mm-hmm. wax ñu bërëb bii lañu fasante kóllëre ñoom ñaar loo xamante ni lu wér la ku nekk wax delloo sa morom fa tabaarakallaahu sa amoon na ay seede mm-hmm. kon fa tabaarakallaahu ñoom ñoo bokk seen benn maam di moom maaram fa tabaarakallaahu ñoom ñoo bokk seen benn maam muy maam Maaram Mbakke nga mel ni kon euh, bu ñu déggee kàddu gi seen bokk sori na loolu waaye bëggoon nañu xam dëgg-dëgg euh, Oustaz Magnang Bamba di Maodo Maodo di Bamba loolu nan nga ñu koy misaalee ci ak fi mi toll kii naan tiijaan la kii naan xaadir la kii naan laayeen la te it woykat bi ne Bamba di Maodo Maodo di Bamba ban dalil nga ñu indil ci wax wax jooju. xam nga bu am am solo la. Maodo di Bamba Bamba di Maodo. Mm-hmm. mooy da ngay dëggal sama wax bi ma wax léegi. Mm-hmm. ndax ñoom seen mission. Mm-hmm. benn la woon du woon ñaar. ñaar ñu amee benn mission. kon ñoom ñaar benn lañu war a doon. yàlla xam na ko. Euh, Seydi Hadj Malick nag. képp koo xamante ni que da nekk njabootam. te joxoo maam Cheikhul Khadim xorma bi nga ko war a jox bokkuloo ci njabootam yaa ko boole ci moom maam Cheikh Ahmad Bamba boo bokk ci moom te joxoo xorma maam Cheikhul Hadj Malick yaa boole sa bopp ci Cheikh Ahmad Bamba waaye boo bokkoo ci moom ndax moom li ma ko waxee sànq fa tabaarakallaahu mbokkam la woon ci deret mbokkam la woon ci pas-pas fa tabaarakallaahu mission bi ñu amee woon ñaar rek la ñu xalallahu xala rasul fa tabarakallahu loolu lañ nekkee woon kon ñoom ñaar benn mission lañ amee woon moo tax ñoom ñaar ñu doonoon benn jeex tàkk ci sa sallallahu alayhi wa sallam euh, jërëjëf ndey euh, ndeysaan mu mel ni ñoom ñaar seen mission lenn la woon mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom boo bëggee jàngal ñi nga xamante ni bëgg nañ soobu nañ yoonu mag ñi ban yoon nga leen war a mën a teg ba ñu mën a jëriñu ci li fi mag ñi bàyyi ak li jëmbat muy islam oustaz. wa tabaarakallaahu xam nga gaañ yi des dañuy xaw a xababal. Mm-hmm. waaye xaaj ba bëgg la wax ne nit mënu nekk murit. Mm-hmm. te te te sa jullit wérul. Mm-hmm. sa jullit su wérul sa murit doonoo tiijaan. ndax yàlla ñun ñëpp diine lislaam moo ñu tënk. te diine ñi dafa am ay charte. fa tabarakallah boo ci tënkoo yaa ngi ci boo ci tënkuwul yaa ngi ci la la neex mhm. sa njulit day wér ba pare nga dem jëli ji tariqa mhm. tariqa bi ngay jël du force ndax nit mën na jullitam mën na wér mhm. te du doon murit te du doon tijjaan waaye nag tariqa li nga xamante ni li muy ñàkk même bu bokkul woon ci say activité teewul sa njulit wér taxul nag ni tariqa du dara xam kay dara la ndax njàm waxkat yi nee nañ njàmbaas yàqu sër waaye tariqa taar la boo xamante ni tey fa tabaarakallaahu suñu benn sëriñ euh, sëriñ si Ahmed si Jamil euh, yal na yàlla gën a a bu sunu baay sunu maam Cheikh Sëriñ Mouhamadou Moustapha si Jamil maam euh, sëriñ Babacar si maam Cheikh Hadj Malick day mhm. faral di wax ne sëriñ mhm. boo ko bëggee misaal dafa mel ni tey nga jëm troisième étage troisième étage bi nga jëm da nga faa bëgg a dem te mënoon naaw dem fa mhm. il faut nga jaar ci escalier wala ascenseur mhm. nee na sëriñ a ngi noonu yàlla mu nga nekk ca troisième étage mhm. nga bëgg a egg ca yàlla amoo foo jaar nga wut sëriñ bu mat sëriñ bu mel ni maam Cheikhul Hadj Malick ak njabootam bu mel mel ni maam Cheikhul Hadim ak njabootam ak ñeneen ñu mel ni ñoom nga ñëw jokk ci ñoom ñu ànd ak yow mën laa yéege yóbbu la ca yàlla waaye yow soxlawuloo ndax boo yéegee ci escalier bi mm-hmm. ba egg troisième étage soxlatoo escalier boo yéegee ba egg soxlatoo ascenseur bi kon sëriñ bi boo eggee ci yàlla yow soxlatoo ko jaaruwaay la woon waaye du tere na nga xormaal ko mm-hmm. ndax boo bëggee wàcc ci escalier ngay jaaraat waaye sëriñ bi taxulaa jóg mm-hmm. mooy kon sëriñ du yàlla sëriñ jaaruwaay la pour mën a egg ci yàlla bu gaaw sax bu mën a egg ci yàlla nit mënul egg ci yàlla wala gaaw a egg ci yàlla te amul ko fa yóbbu fa tabaarakallaahu donc mm-hmm. ki nga xamante ni dafa jël boppam na tarixa sàngam moo ma doy mm-hmm. nga dem tënku ca tarixa bi dafa am charte mm-hmm. benn charte boo ko ci bàyyee wala charte ya soo ko ci bàyyee yaa ca boole sa bopp waaye bokkoo ci a tabaarakallaahu waaye maa ngi lay wax ne la maam Cheikh El Hadj tariqa bi mu jël muy tariqa muridiya mhm. nga jël ko wala nga jël tariqa tijaniya jokk kër maam Cheikh El ñu tegal a chartiya la muy bëgg ak la muy tere nga tënku ca insha allahu taala ëllëg foo gëstoo da nga gis sa sa ba ko joxoon waaye nga def la la neex mhm. bu ëllee di nga teg sa la la neex fa tabarakallah mhm, macha allah macha allah ndeysaan oustaz ma ngeen ndeysaan am na solo ba yegg ci loolu fi mag ñu tegoon seen tànk mooy alxuraan ak sunna kaddu yi am na solo ba yegg ci loolu waaye tey si tey ñi seetaan émission bi bu góor bëggoon xam ki ñu dalal mooy kan lan nga leen di baaxee ki ñu dalal mooy kan. xaaj ma sàmm tabaarakallaahu yu dalal day wax dëgg yàlla ndongo la soo xamante ni bu boo xam ne sax est-ce que ndongam mat na. ñu koy wax ma leen sekk fa tabaarakallaahu mhm. dëkk fii ci dëkk bi ci banlieue bi. juddoo Pikine tali bu bees. yaroo fa fa tabaarakallaahu màggee gunaas fa tabaarakallaahu di nag jabootu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha waaye ci biir kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha sëriñ Sidi Ahmed si bu Cheikh Jamil mm-hmm. la du yàlla booleel fa tabarakallahu moo ñu jox tariqa bi mm-hmm. boobu ak tey wax dëgg yàlla émission bi moo xaw kii ndax dimanche bi di ñëw daf ñu woolu ca kër ga ci waawan waaye tey jii sax yàlla xam na ni doon naa jéem a essayé woo ko pour wax ko ci pour wax pour wax ko émission waaye xam naa ni suñu paree rek mm-hmm. ko woo wax ko di ko daal nekk ñu foon dara lu dul euh, euh, sa sa sa ndigal rek ngeen fa nekkee woon fa tabarakallahu yàlla xam na ko waaye moom daal boo ci ci gàttal. Mm-hmm. mooy fa tabarakallahu kooku daal mooy Manick Seck. macha allah jërëjëf kooku daal mooy Manick Seck mooy di ñaan saa borom yàlla yàggal la fi sunu kanam waaye mu mel nii ñi nga xayta ni tamit ñoo ngi teewlu maña buñ bëggoon xam ci lu muy yëngu lan mooy yitteem ngir. ñi teew lu ñu xam ki ñu dalal kam doon am na métier boo xam ne mhm. tabarakallahu moom lañu ñu ñi ñu xam ñu bari moom la ñu xamee mhm. muy métier bi nga xam ne moom la suñu bàyyi moom la ñu jàngal mhm. ñu am ci diplôme li ñu am lépp yàlla foofu la ñu ko jaarale waaye fa tabarakallahu kon euh, dañu nekk ci daara ji te dañuy gëstu te wax dëgg yàlla di sàkku xam-xam ci lu bari te jamono ji laaj ko nag fa tabaarakallaahu ñu dem ba jamono am yoo nga xamante ni dab nañu mhm. fa tabaarakallaahu euh, muy ci wàllu feebar yu bari mhm. dinañ ci def dinañ ci jéem a def ay saafara waaye lépp ci kàttanal yàlla ak mbaaxam am mhm. lu mel ni tabaarakallaahu feebar yi dëkk jamono ji yu ci bëri bëri rek yàlla dénk nañ ci loo xamante ni fa tabaarakallaahu euh, euh, am nañ ci ay résultat yoo xamante yàlla xam na ko jaayante nañu ak kii loolu nag suñu métier suñu tarbiya la ndax doonut loo xamante ni dañ cee nekk du ci wut koom yàlla xam na ko ndax fii ma toog di wax ak yow am ñu ay bërëb yoo xamante ni ñu ngi fa bàyyi suñu ay njaboot ñu fa fa dañuy daane suñu suñu suñu suñu daane suñu doole fa waaye lii dafa nekk ci daara ji lañu ko jàngee ba xam ko waaye itamit sama maam bi nga xam ne moo sama baay di bàyyi ma jee sekk ñu xam ne ko tabaarkalla ci gànjoor moom loolu mission moom daanaka liggéey waaye nag tekkiwul ne suñu baam suñu maam da ko doon liggéey rek di bokk liggéey déedéet waaw xamoon nañu loolu waaye nag bu ñu jotee dañ ko dem gëstu ji waaw ba am ci luñ ci luñ ci xam akas néew euh, def nañ ci ay résultat ci lu mel ni hémorroïde mm-hmm. ci mel ni ndoxum siti mm-hmm. euh, ci mel ni lu yaatoo yaatu ci wàllu impuissance sexuelle mm-hmm. ah lu bëri tabaarakallaahu wàllu farorab wàllu cororab wàllu wàllu gàllankoor lu bëri bëri tabaarakallaahu bari nañ ci ay détails yu bëri yoo xamante ni yàlla tabaarakallaahu dogal na am nañ ci luñ ci gëstu fa tabaarakallaahu ba am ci yoo xamante ni sax am na fu ñu ci jaar ak ay doomu aadama def ci sunu tarbiya te yàlla rek tax incha allahu taala macha allah jërëjëf oustaz Maniang Seck mu mel ni bu déggee ci kàddu yi eh, sunu borom baaxe na la loo xamante ni képp koo xamante ni sunu borom defal na ko tawféex ba mu jaxasoo yow aajoom ci kattanu yàlla dina fajoo mu mel ni li nga xamante ne lim nga ko. yooyu yëpp da koy liggéey te am nañ ci firnde ndax euh, noo dëkk yi te noo ngi gis na ngay jëflanteek mbokk taalibe yi kon ku bëggoon jot Oustaz Mañaan ci xeet tawat yi nga xamante ni lim ko ku ci bëggoon jot mu ngi fexe ba jot la euh, pratiquement yooyu euh, am nañu ñaari numéro téléphone mm-hmm. yoo xam ne ci lañ ñu mën a jotee

ñu ko gisul woon nañ ko gis moo ngi nii ñi ko xamuloo it Kifne TV dafa jóg ngir leeral lépp loo xamante ni njàngale mag ñi la te lépp nga koy liggéey ci alxuraan ak sunna ba tax na loolu sañ ñu ko bañ a fesal ba ñëpp xam li fi mag ñi bàyyi waaye tey ji maanaam ba tey dañuy xuus ci waxtaan bi ñu fas yéene dugg ci góor gu tedd ku nu sopp te yàlla tax muy El Hadj Abdou Aziz googu lan nga nu muy mën a indil ci moom. allah ji abdou asila baax wallaay ndeysaan eh, kooku de wax dëgg yàlla eh, sëriñ Massamba amul ndax eh, suñu maam Abdoul Aziz radiallahu taala anhu ñëpp ko bëggoon ndax na mu daan doxale ak na mu daan jëflante man sama rakk bi topp ci man moom lañ Aziz maa ngi fàttaliku suma bàyyi mës na ma ànd ak moom ak Abdoul Aziz ñu ànd dem keroog wax na wax ju yéeme sama baay bi mu ne ko Aziz Boussine daf na ko bu ko waxaat Abdou bu ko woowee Aziz dina ko woowee Abdoul Aziz waaw ndax Aziz dafa bokk ci tur yàlla yi fa tabaarakallah kon dina ko woowee Abdoul Aziz suñu am da baax moomu nag doonoon koo xamante ne nag dafa jamono teg mag ñi jamono teg ñu ndaw ñi doonoon nit koo xamante ni nit ku baax a baax la yoroon mission bi nga xam ne nag bàyyam maam Cheikhul Hadj Malick daf ko yoroon mu doon ko mottali maam Abdou amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayeen mm-hmm. amul catholique ñëpp ko bëggoon mu defoon njàngale boo xamante ni jëmm maam Abdou rek école la mm-hmm. toogaay bi rek boo ko xoolee mën nga ci jàng ba defar ci mm-hmm. waxuma waxagul yàlla xam na ko waxagul mu toog rek mën nga cee jàng lu bari su waxee ne fa tabaarakallaahu waaw suñu mag ñooñu mm-hmm. tabaarakallaahu beneen affaire lañ xaal mm-hmm. ñooñu ku yàlla dimbali mm-hmm. nga nga dundandoom ñoom benn at rek sa jikko dafa war a defaru biir ak biti yàlla xam na ko mu nekk njaboot ci maam Cheikhul Hadji Malick fa tabaarakallaahu ah ñu koo xamante ni nag yàlla xam na ko ah, Sénégal du ko fàtte waaw rawatina bu bu yëngu-yëngu amee yàlla xam na ko bu yëngu-yëngu amee ñëpp seen xel ci moom lay dem waaw maa ngi fàttali ko am na at boo xam ne ah, su nekkul jamono Ablaye Wade bi ñu fi soog a jógee demee noonu mhm. am na njëriñ bu amoon waaye kasetam dañ doon teg kasetam kaset bi mu daan réglé situation yi fa mhm. tabarakallah mhm. waaw yooyu rek xam nga nit nag bu demee nag ba làqu ci jëmm te kasetam di réglé problème kooku nitu yàlla la fa tabarakallah yàlla yàlla taasuñ ci barkeel mu nekk koo xamante ni ñun xamuñ ci moom yàlla xam na ko waaye daal kenn du doyal ci moom yàlla xam na ko wallaahi ndeysaan yàllaaku taala am jërëjëf Baye Mandiang ndeysaan li nga indi ci Alaaji Abdou Aziz ci ci ñàkk caaxaan nga xamante ni moom la nekkee woon mm-hmm. ndax ndeysaan dégg nañ ci eh, mbokk yu baax yi ñu ne Alaaji Abdou Aziz Dabakh nee na keroog yomal xiyaam mm-hmm. bu yàlla jëlee nammee jël benn jullit tàbbal ko safara moom Alaaji Abdou na yàlla suñu borom wal jëmmam ba mu dell safara ngir benn jullit nar dem bañ a dem safara kon yërmaande foofu la fekk baax waaye ñu nangu ci kàddoom it moom Alaaji Abdou Aziz ñu dékk ci ndeysaan nga xamante ni dafa siyaari ji Serigne Saliou Mbacke ba mu siyaari Serigne Saliou Serigne Saliou yóbbu ko résidence woolu Serigne Saliou Touré wargalloo ko waaye saa bu wargaalee bu ataay ji pare moom Serigne Saliou Touré Serigne Saliou la koy jox mu jox ko El Hadj Abdou Aziz waaye keroog Serigne Saliou nee na loxoom yi ni mu bindoo moo tax ataay lul El Hadj Abdou waaye bu loxoom yi binduwul woon noonu moom moo koy ataaya waaye saa bu sëñ Saliou Touré Thiès bu noppi kaas bi sëñ Saliou la koy jox mu jox ko Alaaji Abdou ci cofeel ci bëgg waaye boo ñu doon indi sa digg ak sëñ Saliou Mbacke radiyallahu taala anhu ma ñëw barakallahu wax nga ñoo xamante ni nag eh, seen seen seen seen melokaan ak seen jaar xaw nañu nduru lu ñu tuuti ci Sénégal waaw ndax eh, sëñ Saliou boo xoolee Sénégal yëpp a ko sopp am nañ comme ni ni macha allah ni ñu mel ci suñu maam Abdoul Aziz radiallahu taala anhu Sénégal moom lañ mel ci Serigne Saliou Serigne Saliou nag man dafa am loo xamante ni sama dañoo wëllërante ma ak moom te dañu lu leen ci baatin waaw mosuma ko jox loxo nag waaye fa tabarakallahu dañu wëllërante ndax gisee nañu ñetti yoon ci nelaw waaw ci yoo xamante ni gisee nañ séqante ay kóllëre ba sama doom bi nga xamante ni moom mooy sama doom bi mag tabaarakallaahu moom laa ko tuddee bu judd 2000. bi ma ko koy tuddee sama bàyyi gi dund. Mm-hmm. yàlla xam na ko. waaw waaw doon loo xamante ni euh, lu wér la yàlla xam na ko. Mm-hmm. yàlla war na ko ci nelaw. moom moom moom seen saali yi. yàlla war na ko ci nelaw lu jëflante ak ci loo xamante ni si nekku ci. Mm-hmm. waaw fekk soxna si mi ngi tollu diggante. bi ñu xëyee dañu ko wax suñu wéyju bu góor. waa wax dëgg yàlla bi dañu gént Serigne Saliou. radiyallahu taala anhu boobu jamono mi ngi dund nag waaw bi ñu ko nee dañ ko gént lii la ñu jëflante ak moom waaye nag yóbbu nañu nag ba ci Serigne Touba ndax bi muy toog dafay ñaanal nit ñi ne leen tax ñëwoo ma ñaanal la ma ko dara mën ma ma jóg dina ànd dem ba ci Serigne Touba mm. na ko mbàkke ñaanal ko mm-hmm. yàlla xam na ko Serigne Touba ñaanal ma yàlla ñaanal ma ñaanal ma yàgg nag waaye bi ma raayee bi ma tunnee gisaatuma leen fa tabaarakallaahu bi may dem fi ma jël xaw ma ko waaye bi may retourné fa tabaarakallaahu mm-hmm. yoon bu gaaw la ma koy sam wooy jur mu ne ma baax na Mhm. ñetti fan lañ ci teg si am gone muy góor mhm. waaw ma ngi sama papa bu kan laa ko bu kan laa ko tudd moom ah, yow de bu nga juddoo mhm. sama baay moo xool tur bi ko neex ci sama rakk mu yow may naa la autorisation tuddee ku la neex macha ah, man nag la ma tënkoon yow duma nangu mu tënk la man am man ñaari doom rek laa tudd ci samay doom sama doom yëpp sama baay mooy xool tur bi ko neex ba ci Abdoul Aziz bi topp ci yow waaye yow wax xool xoolal ku la neex waaw ma ne ko waaw eh, baax na waaye gént bi ma géntoon loo si wax mu ne ko léegi tuddee ko ko ci sama ndigal nga fasante ko moom ko lëre te sama bàyyi Serigne Babacar Sy rek lay la dëggal ak loo mën a wax ci àdduna boo doon waxtaan Serigne Babacar Sy léegi da nga da nga mu ci jox waaw yàlla xam na ko عبد العزيز سمارك بابو موسى دف دف يوف خلاص بني غور بكو بكي كي دانا كم باب بال ما تبار كسرين بابو كاس غور كده تبي يبي دي جوات يا الله حمنا كم واو شو ما ندم تياو ندم ما بو بيجي تراو بسرين بابو كاس تبي فصل ما تو والله العظيم واو ما نكون تالي بسخسر محمد موسى فاجمين دي دي نكبا فتبارك الله وجوه ما ديجل شلولو ما تديو بسرين ساليه Euh, yàlla xam na ko moo juddu moo juddu 2000 am na 20 ans léegi tabaarakallaahu ma fasanteeg moom kóllëre euh, jamono yoon suñu benn wëllëre sëñ euh, sëñ sëñ Ousmane Mbacke mm-hmm. bu sëñ Mbaye bi bu moom Thierno looloo boole suñu kóllëre maak moom mm-hmm. waaw bi ma ko ko expliqué mu xamal ba ne ma sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu képp ku mu feeñ rek xamal ne yàq zatar dal mu feeñ kenn ci gént fasanteeg man kóol ñëw di ma yendu si sama kër fa tabaarakallaahu loolu lu ama am solo la mm-hmm. euh, te nga xam ne ñun sama juróom-ñaari maam mm-hmm. ci sama wàllu baay ñëpp waa kër Cheikhul Hadj Malick lañ waaye sama juróom-ñaari ndey ñëpp waa Daara Xutuus lañ fa tabaarakallaahu sama yaay <laughs> baayam si mut si mur Moussa Mbacke lañ ko tuddee mu jégalu ci Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kon te li nga doon wax rek mooy ñëwaat mhm. Bamba di Maodo Maodo di Bamba mënoo fee gis nit kuy dem mhm. te ci wàllu ndeyam ak baayam mhm. amul kenn bu dee murit la te taxaw laalewul fenn ci tijaan wala bu dee tijaan la laalewul fenn ci murit amul fenn looloo indi nag Bamba fépp Bamba ñëpp la bokkal ah, Bamba fépp bul ko weddi xamul tax waa ji daf ma romb ne moom miim réew Bamba ko moom ma ne ko bu ko moom leen dëkkee ëppale ko ci. xam lu war a lool. Seydi Hadji Malick. Mhm. mooy Cheikh Mat Bamba. bu fekkee ñoom ñaar kenn lañ. Mhm. la Seydi Hadji Malick yor. Mhm. sëñ Touba ko moom la sëñ Touba yor sëñ Ba Seydi ko moom. ñoo bokk tamit lañ bokk. kon ñoom ñëpp. ñoo bokk benn tabaarakallaahu mission bi ñu amoon. kon ku ci nekk la nga yor. sa morom nga ko wutu. tabarakallah macha allah wallaay ndeysaan am na solo ba yegg ci loolu ndeysaan oustaz Mañang Seck macha allah li nga indi ci diggante ndeysaan Serigne Salihu Mbacké indi ko ci diggante Alaaji Abdou Sy Dabakh waaye nag da mel ni li ñu cër la ci waxtu moo ngi jëm ci wàccaay wàccaayu jeex waaye dañuy jëm ci ki nga xam ne moo yi lu am moo amal lu baax moo ko baaxal fu dara nekk bañ koy safoo diko ko tiitaroo moom la buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul muy Tuuba ak Njaasaan ak Jaamal ak Canaba ak fépp lu way am ba di ko ndamoo jëmm jooje moo ko waral muy kan yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xamante ni bu ñëpp jàqee keral ko moom kese mooy taxaw moom la borom Tuuba nan ko katabtu annal muntaqa qad faaxa man madda wa man yaati man fii sa zaman مم لسيرن كبار هنا لم يبدو مثل مصطفى محمد سيرا وجهرا في البراوة يا يا وزمدي لم يبدو مثل مصطفى محمد سيرا وجهرا في البراوة يا سمدي تجيب <laughs> <laughs> من يعني لن نقول إن تجيب غوغة صلى الله عليه وسلم مولبنا يا الله حمله يا الله حمله وإنه إس أراد الله نصعتنا أبانا من نوره نور نبي العالمين مولكم ما شاء الله حد مالك تبارك الله كي بجاه صلى الله عليه وسلم mooy ki ñor yàlla. Mhm. yàlla dara ñoru ko dugul yonent ku bëgg. Mhm. saf yàlla. ku mhm. bëgg yàlla saf la da ngay nangoo saf yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. sëriñ bi. yonent bi tant que joxuñu ko teguñu ko palaasam. problème bi du réglé. loolu laa bëgg mu leer. Mhm. fi ne ku ñu fi xëcc sa sëriñ wax ak moom. Mhm. wax ko luñ ko warul woon wax. Mhm. doo nelaw. déedéet te yonent bi luñ ko wax nga yàndoor. est-ce que sopp yonent bee ngi ci ñun. doy na waar am na tubaab bu wax la mu wax ca yonent bi. ku nekk nga sa bopp. waaye man yaakaar naa ne ñun ñoo ko ca jiitu moom tubaab boobu. xam naa nag du xaj ci émission bi. ndax waxuma la. maam Cheikhul Hadj Malick. ak maam Cheikh Ahmad Bamba ba ñu daja ca Njaarnde. gas ab ñu gaslu ab kàmb. dugg ci biir ka leen ñetteel mooy Mama Guma Amar lañ fa waxtaan wax nañu ko mhm. insha allahu taala jamono dinañ ci wax mhm. waaye yonent bi wax naa ne ñi nga xam ne dañuy toog mhm. di jël seen i kilifa di ko teg ca kaw di ginnaawal yonent bi wala di waxtaane seen sëriñ bàyyi yonent bi te seen sëriñ yi bind li ñu bind lépp ci sallallahu alayhi wa sallam ko bind ñu bañ ko wax ñoo ñoo njëkk a karikatifi sallallahu alayhi wa sallam mooy lépp xam naa nag waxtu bi tabaarakallaahu sëriñ baa ngi signalé eh, lii des matul sax juróomi simili waaye daal mu mm-hmm. bëgg wax ne mm-hmm. salaatul ala nabi sëriñ Cheikh dañ ko wax ne ko mm-hmm. waaw li ñuy liggéey est-ce que mën na nit mën na dund dund bi yëpp di lekk lu dagan mu ne jafe na de ñu ne ko luy solution bi mu ne xanaa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw rahmatan alamin la keroog mu génne àdduna mag ñoo ñoo génne kaamil di jàng mu ne matu ko def leen dànk jàngal leen ko salaatul faati mm-hmm. donte ko nag alxuraan waxuñu ni salaatul faatiha da ko gën a màgg mm-hmm. ndax alxuraan moom mooy salaatul faatiha waaye mu ne ko jàngal leen ko salaatul faatiha ndax rahmatan lil alamin tabaarakallaahu mm-hmm. mooy yonent bi yonent bi la solution la ci ñun bu ñu ko doxalee bu ñu ko bàyyilee ginnaaw sunu dara du jëm ca kanam bu ñu ko jëmmalee kennal ko rek lépp dox fa tabaarakallaahu buñ ko jiitalee lépp jëm kanam ku yàlla jiital nañ ko jiital ku ko jiitalul far daal di juutu yenent bi la yàlla jiital te mooy la lumière yenent bi Serigne tubaa ba ko Touba bi jàppee ne ko yenn dana diis borom tubaa xoola sa njaboot wala sa doom yi koo ci yóbbu Serigne Touba ne ko bëgg yàlla ak bëgg yenent bi far na may bëgg soxnaa ki doom borom tubaa li mu jur tuddee yenent bi salaa salaam ku bëgg yenent da koy jàppale kon nun ci xam ni ki fi ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki koy ŋàññi ak a xalaat daa xamut ak riiraange jàpp ko waaye nag kuréel ku ne safaraa lay gindi kuréel ku ne safaraa lay gindi waaye yàlla la mu waxoon rek sama wàllu yii de ku leen attaqué guerre man yàlla ngay léewteel sàkkaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma <laughs> ah, am nañ mbégte incha allahu taala ci jotaay bi ni nga ko waxee ci yonent bi incha allahu taala danañ amaat jotaay boo xam ne <laughs> spécial boo xamante ni moom képp kott dong la ñuy waxtaane moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du mën a ñàkk comme noonu ñu signalé waxtu bi da uh-huh. ca des maam daanaka taxutoo yaatu uh-huh. kàddu yi nga xëyte ni mu ngay tàggatoo mbokk taalibe yi fa mm-hmm. beneen jotaay incha allahu taala xam nga sallallahu alayhi wasallam mhm. duñu wax ne moom la ñu waroon doole mhm. déedéet ni ñu ko indee baax na mhm. ndax jant buy waajee fenk day indi ceeñeer te ay ceeñeeram fii ci Sénégal ëppul Seydi El Hadji Malick Cheikh Ahmad Bamba kon insha allahu taala yeneen jamono dinañ ci ñëw indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën koo yaatal xanaa di gërëmaat ñëpp fa tabarakallahu euh, di la jiital ci gërëm yi ak cant yi wax dëgg yàlla lii euh, ci sa euh, pexe ci la jaar ak bu ànd ak dogalu yàlla waaye di nuyu waa Kifne TV fa tabaarakallaahu di wax ne eh, télé bi yal na yàlla eh, yëkkati ko ba mu dem ba kawe suñu njort fa tabaarakallaahu di wax ne suñu yëfu bopp la gis nga li ngay gis nii fi ma toog mhm. moom laa gën a fonk télé boo mën a gis ci Sénégal li tax mooy moom laa dëkkal mhm. ñoom laa xamanteel fa tabaarakallaahu te doppat sax ci sot la bokk dinañ ci def ñaan dinañ ko bàyyi xel lépp lu ñuy defati dinañ leen ci boole insha allahu taala di ñaan yàlla caméraman yeeg ñëpp fa tabaarakallaahu yàlla yàlla sàmm leen te saxal leen aar leen yow bi nga xamante ni nag mission bi nga amee ci kër maam borom Touba muy muy muy tàgg yonent yàlla ba xam nag yal na yàlla defal lu kawe sa njort te yàlla sàmm bi aar la incha wa rahmatullahi taala wa barakatuh amin ya rabbi aleyka salaam wa rahmatullahi taala wa mbokki taalibe mbokki jullit yi ñu doon teewlu sunu émission Bamba Fépp tey ji ñu ànd noonu ci Mañang Seck di taalibe Cheikhouna Tidiane yi di fajkatu aajo nag képp koo xamante ni jàkk nga ci njàkkareem xol ci njàkkareem xel boo ñëwee ci kattanu yàlla yàlla saa borom yàlla mun na def tawféex ba lépp saafaru ci kattanu yàlla mu mel nii ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ni nu mën a may ñu tàmbali moonu mën a may ñu àggale gannaaw bañ tàmbalee bay waaj a àggale yàlla saa borom defal ñu tawféex di siyaare baax a baax mbo ñi nga xamante ñoom la àndoon nag ci mission bi ku ci mel ni Ahmadou ñoo ngi koy ziare baax kasaaka yi Ousseynou maa ngi ziare baax galo bu baax baax baax a baax Baye Baar moom nekk ci télé bi ñoo ngi ziare soxna Adama Ngom di suñu rakk di suñu xarit di suñu soppeem loolu la ñuy ziare soxna Fatmata kasaaka sama xarit sama soppe wala maa ko soppal sama bopp muy soxna Nabou Ngom sama xarit la maa ngi koy ziare baax a baax di ziare Baye Moustapha di ko ñaanu suma moom yàlla defal ko tawfeex lépp loo xamante ni. am na ko yéene liggéeyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom jàppandal ko moom Baye Moustapha Ngom kazaaka Baye Massar noo ngi koy siyaare baax Massar noo ngi koy siyaare yaa mbégte bu baax Serigne Ba sëñ bi sëñ bee ñoo ngi koy siyaare baax a baax di koy ñaanal saa yàlla defal ko tawféex image bu rafet bu ne mooma ñoo koy ñaanal saa yàlla defal ko tawféex kon mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di jéglu di siyaare mboolem seen soppe Serigne Massamba Ngom Bichri moom Serigne Saliou maa ngi siyaare bu baax kenn bëggul moom Serigne Moustapha Sy ñoo ngi koy siyaare di sunu xarit di sunu soppe ngir jëmmi Serigne Saliou ñoo ngi siyaare kullu moo ko xëyte ni yaa ngi topp jotaay bi ñu ñaan sa borom yàlla defal la tawféex mbokk yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu beneen jotaay barke borom